immobilier beaucoup ko faits. Yen ngeen woote 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier Diaker, kër ce pas ci réew mi. dimbalante am na solo ci jamono ju ñu tollu wala rek mouvement bi di and qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux, dara, mosquées, jumeaux, écoles, prisons, pouponnières et internats. Donc, si tu veux vraiment aider, n'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange Money sur le numéro 78 433 44 51 Le mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek, Ce mouvement, sa pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 en Dibolente, Barne. ay ca salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi fii ni doon ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy euh, suñuy am di jàmm suñu xarit suñuy mbokk ci combat bi amoon démb ci diggante ak kan diggante Balla Gaye ak Boy Niang 2 ay pour ñu wax ñu seen seen seen jàngat ci làmb ji nan la làmb ji demee ak Balla Gaye euh, ci lan la war a nekk instant bii nii ndax mag ñëw na loolu la gars yi wax ay ca kon loolu dañuy seeti kenn ci ñun suñu benn partenaire suñu xarit moom tamit lañuy ñuy xooli tey ji ni mu wax ñu ci làmb jooju noonu jël ak moom tamit quelques quelques points ah ndaxte instant lu ñu mën mën wax mooy di féliciter ki nga xam ne moom mooy booy Niang 2 ci victoire bi am démb ah, ci contre kan contre Balla Gaye di encourager Balla di ko wax noonu la lamb moo demee noonu dafa may booy bi change booy bi tamit ah, macha allah jël li nga xam ne moom la moom la moom la suñu borom teg ci kawam ah di wax ni tamit ah supporters yeeg mbokk yi ngeen def nank xam ni noonu la làmb moo demee noonu ah làmb moo demee noonu da tey ñëw daan suba ñu daan la ginnaaw suba nga ñëw indi match nul la moo Bal ah, suñu borom jox na ki nga xam ne moom mooy Boy Niang 2 victoire bu sedd guy ci kaw kan ci kaw Balla gay 2 le lion de Guédiawaye ay ci sama cameraman boo ma toppee ñu xuus dugg ci biir lamb am na fi démb lamb joo xam ne macha allah nit ñi jëloon favori bi jox ko Boy Niang nan nga jàngatee défaite boobu noonu ci Balla Gaye tey pour dire vrai man du ma sax seetaan du ma sax seetaan combat football sax du ma ko seetaan parce que bokkul samay passion sama passion recherche la ak liggéey recherche liggéey recherche liggéey man loolu mooy sama passion quoi Vous waxee recherche pour liguer toujours tout le temps je me suis concentré sur la lecture man loolay sama passion parce que man démb ma xool gonti si naa xëy siwu ma mais bi ñu demee ba timis gis naa dëkk bi mi ngi calme huit heures dëkk bi mi ngi calme si si la si la si la si la si la yegni, ni tey dëkk bi amna lu fi xew quoi man la ci après ñun mooy tay Balla Gaye day béré ak Boy Niang waaw la fa démé mais mais ci kaw loolu noonu seetaan nga làmb ji wala seetaanoo ko. billaahi seetaanuma ko su ma soxla mi ngi ne la toog du ma bàyyi ma fenn. mais xam nga xam nga Balla Gaye 2. Balla Gaye xam naa ko. instant bi ñu toll nii euh, dañ koo daan démb mais boo ko doon conseillé lan nga koy conseillé. waaw mais dara c'est ça le sport. c'est comme des tar des cartes truquées. soit tu gagnes soit tu perds dama koy wax rek bon courage quoi et puis mu préparé waat après xam nga peut-être cette fois-ci yalla mo na moy victoire parce que la victoire aussi appartient à Dieu waaw mo koy jox ku mu neex voilà Boy aussi félicitations et puis yàlla na ko jig waaw sa dernier mot sama dernier mot sama dernier mot moy que vraiment man li ma bëgg et puis li may xaar ci jeunesse bi li ma bëgg ak ci li may xaar ci jeunesse bi c'est vrai jang nañu c'est vrai ñi ngeeg suñuy diplôme mais bu ñu bëggee xaar toujours état defal ñu lépp du sotti ku nekk na xool ci lan la war a mën a entreprendre te bañ a xaar benn instant di wax non instant foog mam am investissement foog ma am fonds foog il faut démarrer a partir de zéro franc comme on l'a appris à l'ISEC tu peux entreprendre à partir de zéro franc waxin la déggin la laaj xoolal les jeunes Pula Fouta fan la ñu jógee ñu dara booy booy soucis xool fu ñu jógee ñu dara boo demee ci marché yi ñoom ñooy xasal la waaw ñoom ñooy hasala ñu góorgóorlu quoi waaw ñun ñëpp mënuñu toog ci bureau yi quoi il faut ñu créer pour ñu mën développer Sénégal pour changer Sénégal sans ñu bouger Sénégal nag moo ñu mën Sénégal man boobu gëm quoi et puis je vous remercie ak surprise bi man quoi di wax ci mais bah, j'espère que j'ai bien parlé et puis su baaxee ngeen ni la bu ay aussi man ak matidi ci man la quoi waaw je vous remercie vraiment kontaan naa ci yéen waaw je m'attendais pas à ça quoi a ngeen waroon bàyyi ma préparé xam nga a yu demee noonu quoi may leen vrai kaana bi dégg naa ah? allez go hard. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. Euh, gis nañ ni Balla démb da doon bëri ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang yàlla dogal li nga xam ne moom moo gën euh, que ni Boy Niang am ndam ci kawam. Mhm. nan nga jàngatee làmb ji. waaw dëgg la euh, làmb ji maa ngi man làmb ñëpp ma xam presque. nëbb ñëpp amu kii dem lamb rek xam nga ma ndax entraîné na la course la may toog sees bi bi mbër di bëre ku ma xam-xam ne maay mbéng bu dóoraat Balla Gaye xam naa ko bu baax xam ne moom xam na maa ndax ba ñuy fréquenté ak sos fajaa boobu maanaam fa ñëw benn néeg ñu bokk ak ñoom ñaar boobu ba léegi te maa ngi koy suivre moom wuy bon état su ma soxla suba day daan si làmb laa yëngu damaa faroon démb waaye benn en tant que lamb lu ma xalaat damay xalaat damay conseillé rek ndax xam naa ne bëgg na jom jàng ci fula jàng fi waaye daal lu bëri des moom bu ko wóor na mënut a na bàyyi Gotaan ak am na mbër loo xam ne lépp lu ko naxatu làmb mën na ko fee muy Sa na na ay tànkam ay dallam dox jël ba euh, Sa Thiès nekk bàyyam nekk lépp ëmb mu daan rëg-rëg su daan rëg-rëg lépp lu ko naxatu làmb Sa Thiès na ko fay dina ko fay Sa Thiès xale bu ndaw la bu waa Sa naanam jëli ama bu waa dina ko may te dana te bu ko jëlee dana lu mu bëggoon dana ko am man lu laa koy conseil maanaam champion la lu mu def lamb kenn du ko def Balla Gaye mën naa bëri ci wax am na jom am na fulla du yàq bés waaye nag am loo dafa des te xale ma gis ni entraînement bu njëkk ba bi la sàcce Balla Gaye li mu doon def ci entraînement bu njëkk xale yi lu raw te fu ne ñaan bu la kenn nax man mi wax nii rek lu ma tuutu xam naa xam naa secret bu daan mbër man mi nga gis ne ñoom xam nañ ma man lam lii lam moom ko def ba la sos li si laa tojee nit ñi xam ne man nëbbatuuma làmb laay dund. mais en tant que làmbaloog tey jii nii euh, ñu gis ni euh, làmb ji bëri woon na coow loolu euh, gis nañ Boy Niang mu dugg si ak beneen style boo xam ne mosu koo ñëwee ñii naan Boy Niang fii Yékini la ngemboo ñii naan ngembowul foofu ñii naan Yékinee ko indeeg yooyu noonu. no buñ tooñ Yékini saa Boy Niang fa mu ngemboo ay kër nijaam la dem ngemboo nit mbokkam pikin d'accord fa la dëkk mais estilu sérère bi te gis ni boy ñaa musul indi estilu sérère ban mbeur mo amul estilu sérère ban mbeur moy bëss lamb indi indi do indi baga sérère mo am lamb man soñu mbeur dañu dem stade dañu yobbu duñu ay sérère dañu baga sérère lolu kep mënu ko bañ ci lamb yëkëni deful dara yoyum nekku ci yëkëni ngembu ko wallahi yalla xamé yëkëni ngembu ko yëkëni man na man na ko ñaanal yëkëni ko ñaanal yëkëni ñaanal ko waye yëkëni amul amul temps bo di amna benen temps bo xam dañu boy loolu moom na ko nit ñi génn fële loolu maa ko wax képp kuy takk ngemb si arène bi am nga bagage séeréer amul kuy bëree da nga am bagage séeréer amul kenn ku amul bagage séeréer si mbëri man damay yóbbu mbër esat man nit ñi xam ne damay yóbbu mbër esat damay yóbbu ku ma xam doo doolaa nga suuf te su ma ñëwee si laamu su ma la xoolee boo jekkee dinaa xam fi ma toog si kaw esat laa laa toog bëgg ma mbër mu nekk si dernier dernier moment dernier eh, moment si digg géew nga taxaw benn place man bëgguma loolu bako ko Balla Gaye defee laa day daanu ki ma toogal man carrément lay daanu manam dafa taxaw fim taxaw buusagul mom ba les saa nekkatul ay sëriñam taxaw ñet ñi taxaw mom buusagul ak lu munta am na buusee def ay mouvement ci bit def ak moi nit ñi seen fi seen si poto mën xam ñima antone ñep dama leen Balla Gaye day daanu te moom laa ba may dem instant dama lay day day daan waaye bi ñu ñëwee ba dernier moment ba ñom ñet ci desoon ñom ku nekk sa ñaari seen laa fi ma tok ci kala lay daanu mam ko am dama ko yaakar trop nak ma gis mu fay téléphone te xam naa ñu la ñaan Balla Gaye sa la bokk ñaar kenn ki mi ngi Ziguinchor kenn ki mi ngi du dëkk parce que mooy li ñu xam ko ma oo la ñu fay seen téléphone si laa gën a xam Balla Gaye daanu waaye su ma koy ko bëgg ku lu bëreeg bu lu bëreeg mbëri parcelle moom laay di ñaan pour mu daan ku ma xam ku yaakaar sarax ma génn ngir bëgg ma ko bëgg ndax lu ma bëgg ko dafay dundal làmb képp kuy dundal làmb bëgg nga Balla Gaye da da neexal làmb te ñu làmb lañ am moom la ñu bëggee moo tax en tout cas li ma koy conseil lii na jël Sa Thiès ëmb ko raxasaat gannaaw gi raxasaat am na ñoo xam ne bokku ci làmb bokku ci côté na si di génne am na ñoo xam bokku ci seen yoon nekku ci buñ nekk ay comédien nañ ko ne nekk ay def leen nañ génn ci làmb bala génn ëmb rakam na ëmb rakam nekk lu ko naq lu ko amutoo ci làmb am na lépp sax waaye bu ñëwee fa mu tegoon tànkam Sa Thiès waa tey fu ko raw su defee lii mais en tant que en tant que en tant que coach mën tant que entraîneur en tant que aussi tamit euh, lambaloog tey jii nii Boy fan fan ngeen fan ngeen ko war a séntu moment bi booy leen lenn xam naa ko mën naa nekk fu mbër ak man fa ak ndax am na jom ji am na fula ji am na xam-xam bi bopp bi baax na ta ñeme na entraînement nangu naa dégg ndëgu kilifaam ah, ah lu nekk ñu mi bàyyi ma ngi koy dégg mi ngi koy maîtriser liggéey li muy liggéey naa am lépp lu am na am na am am na am na gannaaw bu baax fexeel ay gannaaw ay gannaaw bu leen wor ay gannaaw bum mu leen wor lu ñu wax mbëri bu mu ko dal te bu xoola fu mu teg tànkam foofu la mais instant bi ban ban boo ko doon jox adversaire ban adversaire nga ko doon proposé. damaa xamul waa Pikine nañ nangam déet xaw ma nag Modou Lo pare na pour bëre ak moom waaye combat boobu moo làq si combat mooy bu ñor bu ñu ko defee lépp lu lambu maa ngi. lool ndax dégg nañ Pape Sarr moom tamit nee na nañu waajal ndax Modou Lo euh, mu ngi ak avance su a Baldé ba léegi leeragul ba xam ni ñu ko la baal na leen ko mais bu jàllee Boy Niang pare na pour jël Modou Lo. mooy yoon mooy lamb ji amaa moolu amaa moolu ko lamb la amaa booy booy ñaam ah, ah, ah, kii booy ñaa ak moolu mu lamb la moolu loo moo ëpp anniversaire ci lamb ji moolu te waaw waay xaasim billaay man su nekkee si lamb la xaw ma ne mu nekk si lamb waaye bu jëlee man fii laa la ko waxee su jëlee décision xaw ma ne mu ñaar jëlee décision bu jëlee décision leen man ndax la fu ne xoolal bu soloon xaftaan léegi romb la fii soo ko dóoree sa bopp mooy daw song la bëree nga yow so soo moon léegi si mbedd nii nga ne ko bëre mo nekk ci deretam mo leen man ka kay la lamb laaj bu bañ ko def waaye bu ko bu ko laajee def ko entraîné wallahi boo yëpp da leen da leen di bëriloo ñëpp na Abba Sène moo leen man na xal la comme ñom dafa teel a am rek xaw ma lam ba léegi mi ngi lamb xam nga lamb man na am bëri am xaw ma mi ngi lamb waaye bu la buy lamb wallahi mo mo leen man la euh nga lamb ji waaw na ko kay ko faralon Balla Gaye. Balla Gaye euh, ban ban conseil ngay jox Balla bon man moom lu ma koy jox toujours moom laa doon faral de mais en tant que conseil bi ma koy jox mooy day nangu ni yàqu na après mu dem bàyyi bëre loolu daal. mais lan moo yàq Balla Gaye. ah je pas mais bu demee ba Boy ñaar yi ko daan moom ñun xamatuñ si dara ah. mais Boy Niang champion la war na mën a daan Balla Gaye. champion la mais yaakaaruñ ko woon. Mhm. yaakaaruñ ñu woon dina ko daan ndax daan nañ ay champion yi nga xam ni. Mhm. ñoo mag Boy ancien ah, président. parce que bi mooy douzième douzième personne bu Boy Niang daan fii ci Guédiawaye. waaw d' accord nous comme pikin moo ñu mën léegi dañuy comprendre loolu rek te jéem a xool nu ñu bàyyee bëre wala ñu xool ki nga xam ni ñun mën nañ koo daan bu ñu ko daanee après ñu bàyyi rek. mais est ce que nangu nga euh, li gars di wax chaque jour cool yi lu muy bari bari bari ñii nee nañ euh, Balla Gaye làmbam ji nii maanaam ba mu daanoo la muy wax ak euh, Boy Niang mooy que ni lan moo tax nga dem ci Yékini mu lay ngemb nangu nga loolu. bon je ne l'ai pas entendu dégguma loolu moom. parce que nit ñi nee nañ euh, Boy Niang Yékini moo ko ngemb moo tax mu indi style séeréer. a ah bon ah ñun de moom bañ duggee ci Yékini moom bañ fa génnee. je peux dire boobu lañ yàqule moom. kon ça veut dire que nangu ngeen ba ba ngeen daan Yékini ba léegi seen dara baaxul. waaw suñ dara baaxul moom yenn saa yi ñu daan yenn saa yi duñ daan te avant boobu moom on était plus mais instant bi lan ngay lan parce que instant bi conseil jël avance contre Eumeu ndax en 2022 jël na fi quatre avance yu bokkul euh, euh, Bombardier Bombardier da ko daan mu dem contre Gris Bordeaux Gris Bordeaux da moom mu kon léegi mu dese ko est-ce que pare ngeen que mu bëre contre Eumeu wala déet. ba pare lim ko daan deux fois ndax li ñuy wax naan on apprend toujours de ses erreurs yaakaar naa ne deux fois yooyu mi ko daan bu ñëwaatee dina xool beneen façon bu mu mën a bëree ak moom pour mën ko daan comme daan nañ ñaar yoon bi pa moom jàpp nañ confiance ni dañ koy daan. mais ñun bañ demee golf démb wax nañ ko que ni Balla Gaye na bàyyi bëri bu mu bëri contre Eumeu Sène ndax Eumeu Sène bête noire am la. waaw loolu la moom parce que daan nañ ñaar yoon mais bii nii moom. daan la ñaar yoon du gàcce mais daan la trois fois mooy gàcce. waaw loolu moom gàcce la moom gàcce waaw ah, maa ngi lay fay. waa Ness waa seetaan nga combat bi démb. waaw seetaan naa ko démb ah, lan nga jàngat ci combat bi. ah combat bi moom jàngat jàngat li ma si jàngat moom bëriwul moom. parce que xam nga Balla mbër la champion la. waaw yàgg na fi daan ay mbër tamit xam nga sama non seulement nag sama mbër la nag mais xam nga bisu defet moo ñëw. waaw te ñoom dañ koy nangu nag de wax dëgg fa yàlla. billaahi mais boo ñaa tamit champion la. waaw ñu ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba si kanam tamit wax dëgg fa yàlla. parce que am na avenir si làmb te Balla moom def na fi lim fi war def ba pare. xam nga mooy loolu waa mais nga gis ni cool yi bari na lool ba làmb ji jeexee boo ñaa gis nañ ko mu dugg ci stade bi indi stylu séeréer mais nag ñu ngi naan ah, am na mbokku séeréer ñi naan amul mbokku séeréer ñii nag nee nañ boo ñaa ni moo ko ngemb noo jàngatee lool waaw loolu moom mënut a ñàkk xam ku nekk tamit bu fekkee ne li sa xeet li sa xeet joxe fa nga bëgg a dem nga dem fa quoi parce que amu tax làmb la bëri lañ wax bëri la waa ku nekk wane nga li nga mën a jour ba si jour bi wax dëgg fa yàlla xam nga bisu defet rek mo ñewon nak mais bu ko ngembe ak bu ko ngembul yëpp garawul parce que ah, mëna nek nekk ay mbokk tamit lolu dara xam nga ku nekk war nga fi Balla gay tamit xam nga mbeur la mais tamit yag nañ ko ngemb kon Balla Boy ñaa buñ ko ngembe tay moy lolu amu benn problème euh, bu len conseil ngay jox ki nga xamne ne moy Balla gay Balla gay dal bu mu ko doon jox conseil moom say ni jamono ji bu fekke ne bu fa amane benen combat bu ko beure na baye wax deug fa yalla billahi mu may raxam chance mu xam mu bërek ay moromam quoi mom mu xam nenen mu def wax deug fa yalla mo gën Euh, frère ñu ñëw ci yow no seetaan nga combat bi démb. waaw seetaan naa combat bi. kan nga faraloon. man nag sama mbër mooy Balla Gaye Balla Gaye laa bëggoon mu daan. waaw léegi bu ñu xoolee Balla Gaye euh, dañ ko daan démb euh, léegi buñ ko doon boo ko doon conseillé lan nga koy conseillé sànq. waaw Balla Gaye moom def na lu mu war a def lépp. boo xoolee indaale na woon forme ndax contre Gris Bordeaux nu mu bëree ak contre Boy Niang nu mu bëree bokkul. da bo xolé ku ku dem bo ñaaxala la waaw indaale na doole waaw ta nek na si formam mais combat bi bañ démé ba si bir géew war nga mëna xam kuy daan ba bo ñaa ci meeku nan ah, nga xamé ni euh, euh, buñ démé ba ci biir euh, ku ci meeku nga xam koy daan nokay xolé yow lolu non bo la tamit ta Balla ge saa ni lu mu def ci lamb bo ñaa ta bo ñaa amon na vision bo xamné bu muy dugg ci lamb waxon na ne ni mbeur bi ni dina ko daan muy kan muy Balla moom pare war moom dafa pare woon pour bëre. kon ça veut que moom dafa dafa fekk Balla Gaye ci li mu waxoon ndax Balla Gaye waxoon na fi dina fi daan ki nga xam ne moom mooy yikki ni hmm. waaw booy ñaamante dafa mën naa ne dafa ñëw fayu si. dafa ñëw fayu si wax wax reefam. kon maanaam yow nangu nga ni euh, ba làmb ji nii euh, Yékini moom moo ngemb booy ñaam. ah mais bu ko deful tamit du ma ne la jàpp si mais. kau na si teg kau deh, kon ça veut dire que jàppale na booy ñaata. waaw palaa force. waaw palaa force bi nangu nga ni Yékini moo ko indi. da koy indaale moom. waaw yëfam la de moom. loolu moom booy ñaa bu ko indaalewul woon mom, dañuy wax ak moom. ndax foo jaar ah waaw. Eh, lan ngay conseillé ki nga xam ne moom mooy Balla ah Balla Gaye dañ koy wax décourage rek. Hmm. waaw ne mënul ñàkk nag faak mu am. Hmm. te dem booy ñaa moom mu mën combat bi may nañ ko ko. waaw champion la mbër la waaw Balla Gaye nag maa ngi koy conseil loo xam ne waaw mooy lan rek ay raxam a ngi fi te def na lu mu war a def si làmb waaw am na lu mu war a am si làmb day te raxam a ngi fi war a am yoon boo xam ne war na fa yegg mu jàppale ko mu yeggale ko fay bu baax. Euh, j'espère que seetaan nga làmb ji démb. waaw seetaan ma ko nag mais. xam nga rek man làmbi Balla Gaye li ma koy faral di seetaan bëriwul. parce que dama ko bëgg ba mu ëpp moo tax. Hmm. da nga bëgg Balla Gaye mu ëpp mais coono bëri na loolu Balla Gaye dem démb euh, boo ñaar daan ko ci jël bu amul benn werante euh, loo ci jàngat. kontaan rek ndax Balla moom tàkkusaan gu ne may nañu ko waaw man daal man tay laa ko gën a bëgg man jaay tay yii laa ko gën bëgg kontaan ci moom rek.

Lamine Lamine Lamine j'espère que c'est nga lamb ji demb waaw ban jàngat nga ci am waaw jangal bu mo ci am moom moy lenn rek amna bisu defet moom du bisu ndam moom ñun mom balaje mom moom bëggan na ma tak saan bu ne defal na ñu ne wa ma sha allah kon ba xamé bi bi bu yalla yàlla defal dogal moom li am moom xamné yalla ko dogal quoi luma koy ñaan moy da gëna a ay am droit sam gëna liggéey waat rek parce que na bëre naa Balla Gaye ya, ndam la ci ñëpp waxuma da nga daan bala ji loolu ndam bu ko mu na am si moom kon na gëna defaraat rek bari ba suñu digënde bala Gaye ñu waa Jeey waaye suñu diggante Balla Gaye moom wax dëgg fa yàlla moom kontaan na façon kontaan mu ne ci mom rek bu amé démb noonu dañ koy sante yalla ko xam lu wara am la quoi. ñu gis ni Boy Niang dafa yëpp ñi nga xam ñom ñoy waa joy ndax bi moy 12e personne mu dugg fa daan la ñom ñep nonu est-ce que lolu du leen def li nga xam ne mom moy problème ci Guédiawaye. non du problème parce que lamb la rek parce que Balla Gaye ñaata mbër la daan Pikine xanaa Eumeu Sène bu mu daanee si leen doo ko xam ne waa Pikine ñu ñoo côté eh, si si kaw jéey mais Balla Gaye ñaata mbër la daan Pikine mbër nekk si Pikine tey Balla Gaye moo leen def seen première défaite te Boy Niang joxul Balla Gaye première défaite am Eumeu Sène joxul Balla Gaye première kon loolu du dara lamb rek mais cooli bari lool Balla Gaye euh, Balla dafa dellu séeréer yi Boy Niang Yékini ko ngemb Boy Niang nangam man démb dégg naa ko ci fee nga xam ne moom mooy golf ñu bari ne nañ Boy Niang bëriwutoon ak euh, ah Balla Gaye bëriwutoon ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang maanaam Yékini la doon bëreel combat revanche. waaw mais loolu ay wax la rek. combat revanche Yékini bu su mu noonu lu gars yi wax bu fekkee ne Yékini mu mun na lool kon Balla Gaye da ko mës a daan gis ko de Yékini moom foofu du man man foofu du ma ci débat quoi parce que toog na fi 15 ans daanul. Balla ñëw fobeere ko daan ko deux fois si benn takkusaan ñëpp gis ñëpp teg na seen bopp Sénégal ñëpp xam na ne Balla Dieye kat appui mu amoon si yàgg bu fekkee ne moo ko am si Balla Dieye kon lamb ji fa lay kon bu dee am quatre appui yàgg ni am quatre appui mbër ko kaay bëre mu ñëw bëraal daanaat ko ba mu leer nañ xool xam ne ñun nañ si moom quoi dëgg fa yàlla waaw. ban conseil ngay jox ki nga xam moom mooy Balla Gaye de na bàyyi wala du bàyyi. non moom daan na ko wax sax moom ne nee na xaalis lamb lañ ko jëntee lamb liggéeyam la amul fu muy bàyyi lamb lamb soxla na ko parce que demb boo ñun man maa ngi maa ngi esaat demb deux heures pile laa du esaat bala lu muy indi ci mbooloo promoteur yi soxla na ko sponsor yi soxla na ko waa lamb yi ñëpp ñëpp soxla nañ ko kon tey bu bàyyi lamb lamb day wéet bala bi saa bu bàyyi lamb rek bu toogee un an euh, bëreewul rek lamb day wéet bala doomu lamb lamb bee ko soxla amul fu muy lii man la wax dëgg fa yàlla ma koy conseillé moom lii jarul muy bàyyi lamb na defaraat rek ñëw liggéeyaat ko daan na fi ku ne kon buñ ko daanee rek lu lu dara ci ñun man na maa ngi si ginnaawam musuma découragé du ma mus a bàyyi mbër continuer sa liggéey rek ci kaw ca kanam ci lu baax. làmb ji waaw suñu mbër dafa am defet mais di nga ñaanal yàlla beneen yoon yàlla may ko te bu ëllëgee bu amee combat yi mel nii na taxaw xaar bu mu yàkkamte dara ñun ay supporters am loolu lañ koy digal na taxaw xaar bu mu yàkkamte dara loolu lañ koy ñaanal quoi. mais ñu gis ni làmb ji coow li bari na lool ñii ñu ngi naan euh, combat de revanche la woon contre Balla euh, ak ki nga xam ne moom mooy Yékini. non gars yi moom ku ne da ngay wax sa xalaat rek mais combat bi moom combat jànkala woon rek waaw yàllaa tuloon ni Boy Niang mooy jël victoire bi noonu la demee ñun noonu Balla Gaye 100 pour cent. mais loo koy conseillé instant bii Balla Gaye. mooy bu ëllëgee combat bu mënti am na taxaw xaar bu mu yàkkamti na taxaw ñun ay supporters noonu lañ koy sant mu taxaw xaar bañ a yàkkamti waaw.

champion la amuñ dara ñu koy meree ay comme kii sànq sama collègue bi lu mu ko waxee sànq tolof tolof la rek incha allah mais defaruwaat rek yàlla baax na. ñu gis ni mu bëri xale bu ndaw. Balla ñu ne mbirim mbàcc mu daw song loolu lan nga ci jàngat. mais Balla ñun ñëpp noonu lañ ko xamee xamul taxaw xaar prib day daw song mais comme sànq sama collègue nu mu ko waxee rek ay tolof tolof mais yàlla baax na. defaruwaat ñëwaat rek incha allah bari na ñii naan Balla na bàyyi bu mu bàyyi Balla na bàyyi mu bàyyi loo koy conseillé instant bi ce merci beaucoup chers téléspectateurs yi comme ni mu leen ko waxoon euh, ne woon naa leen tey bu ngeen ma toppee dinaa leen xuusal génne leen li nga xam ne moom mooy ah noonu la demee Boy Niang tamit ñu ngi koy félicité di encourager ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye 2 ndax champion la def na fi lu kenn deful ci làmb mais tamit bu bisu defet ñëwee cuune ngay doon noonu la demee ay ca maa leen di bëggee i ñëpp di leen jaajëfal di am mbégte contentement bu baax a baax merci sama caméra